bëree bare, lay bare, bëri te lay bare. bëri ndaanaan laa ñaari yoon arbitre mu ngi wax ak ñoom wax nag saba ne ko nga nee na Mathieu pare nga Ousmane saba moo ñu wan gannaaw Mathieu la ñu jàkkaar lool day gaaw bu ñu mu jaax wax li man bu ñu mu jaax ak saba saba day naq saale xeexul gëmu ko ay tapale la Mathia ak Saba nanu daje nanu daje Ousmane tey le 26 décembre Ousmane démb la woon Noël heure bi daana ma fekk ma karawaatu ndeysaan ànd ak ñoom amu ñoom jokin di doxantu ci biir mbedd grand fii Saba Mathia y a rien de sérieux pour l'instant bëreeguñu xeexaguñu waaye Jibi Ndiaye le grand promoteur yaa mën a ëffal ngi jéem a def demi flexion pour tolo ak moom Mathieu demul Saba demul Saba dafa mel dafa bëgg a dem Saba daa bëgg dem Saba dóor na ba tey ma ci taxawul lu tax Macha taxawagul Siteu lu tax Macha nangul taxaw. Macha du ko déglu Saba yàgg yàgg si tànk yi la jéem si. waaw dafa mel ni loolu lay loolu lay wut. fa la jéem day daw jël sa tànk wala mu takkale jéem a bëreeg yow te bu yeggee si tànk Macha yi di xam ne Macha ndaanaan la. mbaa caafu mer maa du xam. ah bu xamul xam naa ne dina xeeñ xam nag. Siteu nee na bu xamul dana xeeñ xam. Macha ak Saba gis nga da koy gëdd fi mu ne nii Saba mooy diriger le combat Ousmane Macha moytul jël coup Macha cangu mi muy def doyuma cangum ganaar la d'accord ma gis nga fa la jëm laa ilaaha illallaah Macha nax Saba war na ko takk na ko da daanu jeex na jeex na. ay Macha arbitre joxagul verdict jeexna na Macha daan Saba xola supporter Ousmane xola supporter ya yi sa salari jiin bismillah ma de ci dor nam gor gi Njaay sutu maram jiin bàyyi mam maram Njaay réew ma ngi may song te ko rew mi song bobo booba ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba jiin booba tuuti laa booba su ma dalee jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb nay bari te nay